ci talaata ji dëppoo le 21 septembre 2021 di fukki fan ak ñett ci safar atu 1443 ginnaaw gàddaay gi Serigne Mountakha Mbacké moom ba Bassirou di xalif général des Mourides ñëwoon ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi di université bi muy liggéey ci Touba. ñu inauguré fi bâtiment bi njëkk muy jumaa ji nga xam ne moom la Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Abdou Hakim doon liggéey ci complexe bi. te euh, mu am nag lu am am solo lu am solo ci xew parce que booy seet euh, jumaa ji mooy euh, bâtiment bi njëkk génn. ci suuf si fii ci université bi jumaa ji moo njëkk génn ci suuf si université tey nag mu tombeek moo moom it moom lañ njëkk bu ñu mën nañu wax ne moom la njëkk inauguré ci université bi muy jumaa ji donc muy tawféex boo xam ne yaakaar naa ne loolu am na jàngat boo xam ne euh, borom xam-xam yi war nañ koy war nañ cee mën a jàngat jàngat bu xóot. Serigne muntaxa Mbacké Bachir moom moo jiite taalibe tisbaar ci jàkka ji ginnaaw bi sant na bu baax a baax Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Abdou Hakim ci pasteef gi ak liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ne saasu ne mi ngi ci ànd ak moom. dangaa woote nga nekk doon général bi doon dem ci guerre. woote loo ànd ànd ak nit ñi luñ bari bari bari bari boo gëstoo xam ne sawaay bi am na léegi demoon na it visiter lenn ci liggéey bi nga xam ne moom la tubaa matériaux di liggéey ci complexe bi profité nañ sax ci occasion bi jébbalaale ko ay caabi ci institut islamique yi nga xamante nii dañoo soxla bâtiment yi ndax njàng mi dafa war a door ci weeru octobre bi di ñëw. moom sëñ bi ñëwoon na fi doon seytu liggéey bi euh, yàlla defal ñu ci tawféex tawféex bi mooy euh, Touba matériaux ci institut islamique bi euh, fexe na ba jébbali ci ay caabi donc am na ci ay bâtiment yoo xam ne nopp lañ parce que ci mois d' octobre bii comité pédagogique bi daf ñoo sasoon nañu dañoo buggoon commencé jàngale def ay test léegi nag jébbal nañ leen ay bâtiment yoo xam ne euh, lu tollook euh, ñetti batiment yoo xam ne ci weer wi ñu jëm weer octobre daañ mën a commencé tàmbali def seen i def seen i test suba suba mën nga cee jàng moo tax ma ma ma def nii caabi jëla ko jox nga ñaan ci ñaanal ma ci ma ba lépp lu ma mën a bëgg liggéey seen toit rek sa ngorom may ma kàttan ak xel moom ma ko liggéey maa ngi mboolem ñi ma ko ànd jërëjëf sant gii nga sant yaa ngi ñëpp ko ko bokk yaa ngi mboolem taalibe yéen ko bokk dëgg la sant sëñ Tuubaa rek dëgg la waaw sant nii rek la demee feex sëñ bi dong la moo ni gindi moo ni womat alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf yéen ñëpp yéen yéen ñun seqal liggéey bi ak mboolem taalibe yi waaw ah, képp koo xam ne dañ caa ji ci xolam ñëpp leen di sant di leen di leen kañ waaye di leen a soññu dëgg la sant ak soññu rek dëgg di gën di sant ak soññu rek waxtu wu ne nañuy sant sëñ Tuubaa waxtu wu ne it nañu soñ nañu jëm ci liggéey sëñ Tuubaa ziar yi rek la incha allah waxtu wu ne nañ sant sant sëñ Tuubaa dëgg la waxtu wu ne hmm. nañ sant si soñ suñu bopp jëm ci liggéey sëñ Tuubaa dëgg sa amul ba dégg complexe Cheikh Ahmadul Khadim di daara joo xam ne njàng mi ci suuf lay tàmbalee maanaam kii feer iji ba ci enseignement supérieur di njàng mu kawe mi ànd ak formation professionnel lépp tënku ci njàngalem Cheikhul Khadim. jàngukaay daaray Cheikhul Khadim radiyallahu anhu yoo xam ne mooy daara ji fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon nga xam ne mooy daara joo xam ne dafay defar nit ki defar addunaam defar alaxiraam loolee nag moo agsi ba ci Cheikhul Khadim radiyallahu jaar ci saxaabatul kiraam ak taabiin yi mu jël ko ne cas liggéey boobee jege ñal ko nag dëppale kook nun dëppali kook naka xam ne rek na ko sallallahu alayhi wa sallam indee woon la dara raxu ca dara kooju ko dara xajamalu ko loolee rek la sëriñ bi indiwaat. Cheikh Mouhamadul Mountakha nag bi yàlla dogalee toogaayub sëriñ bi yegsi ci moom ca saasa rek mu daan ne moom li muy njëkk def mooy daal di ne cas liggéey boobu moom it rek na ko kilifaam yaag waajuram yi yore woon def ko nag moom mu yitee boppam. amul ñaar amul ñett amul ñeent bii rek mooy yitteem. sëriñ bi bu mu ñëwee ci complexe bi visité waale na mbooleem liggéey bi nga xam ne ay taalibe ak ay kuréel ñoom ñoo ko sasoo mu nekk ci biir université bi. loolee di liggéey bu yaatoo yaatu boo xam ne fenn fu ci nekk sëriñ bi yóbbu nañ ko fa wan ko liggéey bi fa mu toll ak li nga xamante ni moom moo ci des. mu nekk loolu sëñ bi sant na ci bu baax a baax am ci mbégte ci fàttali ci weeru décembre 2018 lañ tegoon xeer wu njëkk liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi di université bu Touba ginnaaw ñaari at yu teg ñu tàmbalee jébbal caabi yi njëkk sëriñ Mountakha Mbacké Bachir.